ñii seen xol féex na ñii gëmewuñ ko ñii yaakaaruñ woon que ni Ousmane Sonko dina génn maintenant ñi kontaan nañ mais tamit ñii mer nañ xool leen bi Sonko génnee ful bi yëpp Sonko génnee dama dugg sur internet ma connecté wu ma xool page yi patriotes yi ñiy wax lii ñiy wax lii ñiy wax lii waa APR tamit damay lire seen commentaire di reetaan bay bëgg a dee ma ni pourquoi pas ma def benn vidéo boo xamante ni damay def vidéo moo wax waa APR lu ñu wax wax aussi patriotes lu ñu wax sama gars yi balaa vidéo bi di commencer merci d'aimer la vidéo aimer leen aimer leen parce que loolu ñu gën di aimer vidéo yi ñuy gën di kontaan bu leen fàtte yi ñu zéro si benn sama promo code 21F la saa bu zéro di nga bonus 156 000 francs les mi sama commentaire. patriote bi moom nee na. fin de la récréation les maîtres du sont là. kii tamit nee na. Pastef yoruñu dërëm waaye fu ñu génn mobiliser nga tërëf xol bu mag yi di tëf tëf ñii di bëgg ñii di bañ les autres candidats da ngeen di continuer campagne wala déet. kii tamit nee na Amadou Ba ak sa digganteeg yàlla moom day laajte rek. ba xam dangay ngay bëri. kii tamit nee na. imagine t'es pas patriote. kii tamit nee na. léegi dañuy otesu wala dañuy organiser ndogu. donc gars yi dañ ay nit kii tamit nee na. Macky damaa yaakaar daa bëgg bokk ci coalition Diomaye président moo tax mu xulloo ak Amadou Ba pare génnee ñaari mbër yu gën a mag ci élection yi mu ne lii sooy luus. APR bii moom nee na dañoo ingrat rek mais ku xool Sénégal xool lamp yi nu muy xam ne Macky Sall liggéey na du samay wax de.

ba xam jar naa voté nee day laccé rek waa léegi où est le mal c'est la décision de Dieu il faut aspecter ki tamit nee Sonko moy Sénégal Sénégal moy Sonko ki tamit nee na loolee ni élection di yàq temps mënoon nañoo passation de service directement rek jomay dugg puisque jomay moy Sonko ki tamit nee bagn bagn bëgg force la nangu leen li ko yàlla def mu noppal leen patriote bi moom yeneen kaani yi lay kokkali nee na yàq xaalis ak yàq temps rek la fi gis sinon da ngeen yàq seen xaalis ak yàq seen temps moom moo ko wax yéen lay kokkali kii tamit nee na ku na <laughs> naan ndox tamit nee na ma vie reprend son sens ma tristesse est dissipée ma joie est immense Sonko namoon naa pour ñu déggul français nee dundam moom mi ngi doog amaat sens tristesse am dem na joie am nan laa ko mën a waxee mënu ko woon expliquer daal ci sama jàng <laughs> ci sama jàng laa wax Sonko namoon na ko. <laughs> kii tamit nee na ba xam yaa naa kii crois que deuxième tour ba xam dina am. kii tamit nee na. way wali sek bañ ngi am sens mbeur mu yalla samp do daan di nga jeng do daan iyo le donc foog ma tegal len son bi patriote bi mom neena comme que bàyyi nañ Ousmane Sonko day laajte rek ba xamne yu continue koor gi wala dañuy woor ba tey <laughs> yow xiir nga de <laughs> yow yaa xiir nag. kii tamit nee na. am na ñoo xam ne seen xol yi mën nga ci tàngal café Touba ndax seen xol yi essence yi tàng na jër. kii moom nee na heure bi rek ngay doyal France nee na dafa bëgg ñibbi dund mbégte mi en live. kii tamit nee na. waree ba doon esclave moo gën jaay sa ngor ba doon buur maanaam Sonko dafa gore loolu la bëgg a wax. patriote bii moom nee na. Macky kaay ma jaay la pigeon cent cinquante boo koy bàyyi muy naaw. kay ñoo sëri kii moom nee na farul fenn waaye xool na ba xool mosul faral Sonko mais yàlla da ko may. APR bii moom nee na cey suñu président bi Macky Sall dafay libérer Ousmane Sonko libérer Diomaye Faye pare annulé élection yi sama gars yi tey kala de yow xalaat leen ci APR bi tamit mo waxat ba su election amé nañ ko wowe Fatou Sakho <laughs> Sénégal ñi am tamit nee na ngeen abal ma xolu Macky Sall dafa bëgg taal añ suba mais patriote yow xanaa wóoroo fii tamit nee justice de Dieu yaanaa ma demba nii ma paate kii tamit nee na ku nangu li yàlla dugal doo sonn kii tamit nee na instant yi rek ngay am envie nekk Sénégal kii tamit nee na yàlla moo mën xarandoo xolu nit yépp dugal si benn nit kii tamit nee na Dakar est xanaa du quelques voitures yii di klaxonné kese moo tax ngeen wax lii lépp nee na lii du dara voter Amadou Ba il est mieux préparé pour diriger le Sénégal xaaral ma xool ba xam Dakar kase ma calme wala Dakar kase calme. kii tamit nee na. sama xool bi lu mu nekk di yëg maag yàlla kase ko xam. kii tamit nee na. Ousmane Sonko guddi àjjuma la dugg kaso. waaye tamit guddi àjjuma la génn kaso mais yéen kii tamit est du wàllu <laughs> mais kii nan la xalaatee lii. <laughs> kii tamit nee na Diomaye bu gañewul élection yi ma xam ni dañ koo sàcc non sonkoo du nit kii nee na su ma nekkoon candidat damay bàyyi campagne bi non li gars yi wax yëpp su ma ko naree waxaat man fii laay fanaan te instant yi sonn naa <laughs> xaar ma leen quelques vidéos bi Sonko génnee gars yi ci manifestation bi da ngeen réewee bëgg a dee waa ji rey na ma xool bu sedd ni glace rek lañ ci am maanaam man mii ci boolu ceeb la ma fekk ceebab jën bu am Dakar am am kii ceeb ceebu jën bu am Dakar la ma fekkoon may lekk. suul suul ni ma xoolee sama téléphone rek. ceebu jën bu am lan. bu am Dakar. ak lan am bëggee am suul. am na suul bu baax. Eh, am na limon. moom man kan. waaye bu loolu loolu yëpp lekkoo ko. man daal naka laa xoolee. Eh, të të laa xoolee sama téléphone. gis information ba rek ma sànni ko dëgg. da ngaa sànni ko dëgg. Sonko ma gën a lépp. barke yow man xëy na ma la jaruko mo nak mana? góor gi ba fajar barke rasulaay sun ko rek xëdd la barke alquraan karim ñoko bëgg fiir waji aussi mom suma rayul man yal na dee bëgg ñu dañoo bëgg sax bu gene fi bu mu dem ci kër góor gi nañ ko ne suñu caravane dem campagne amé du noppal no jarul muy noppalu limi muy noppalu noppalu ko jaga so ba pare nañ ànd ak moom dem campagne eh, yow di nga xëdd di nga xëdd di nga xëdd déggoo mo man sama weeru korité feñ na man warina eh, man warina bis ni ki tay man warina sama korité tay la man warina ndax mbégte gi ma am moom nee na Jurbel neen la faal lu dul yàlla neen la mbubu jaam gi dogg na barke Seexul Xadim ñun waa rek la ñuy topp campagne bi ba mu tam léeg-léeg gis nga ne saful yàpp saful jeen wallahi azim non mais gars bu ñu waxantee dëgg rek bu ñu waxantee dëgg rek Sonko li ko yàlla may may ko benn politicien non mais man man parfois damay toog man man gars man gars yi yéen yéen patriote yi yéen yéen yéen seet te te te ah mais tamit bëgg sa réew kese la bëgg sa réew kese la sama gars yi dama ne woon lii moom foog ma def si vidéo parce que xam nga mënu ma see bañ a def vidéo kon aimé leen vidéo bi ngeen commentaire like leen like leen vidéo genre vidéo yi bu leen neexee aimé leen aimé leen na like yi bëri bu like yi bëree ma xam bëgg ngeen genre vidéo yi dama ciy gën sawar di ci def parce que yaaxaluma dara yaa ma gën a xam aimé la vidéo partagé ba beneen vidéo ngeen toog ngeen activé notification yi jaajëf sama gars yi dégg yàlla la